ñu ne am na ay coow bii mu ñëw ñu ne bii nag leer na. waaw mais loolu ci am contentement rek xam nga affaire yi moom lu jot yomb ah faat nit euh, jullit dina bëgg dara te te jotul xam nga bu yàlla noppi na démb ah. bëggoon nañ ko ci fan yële weesu mais yàlla sottilu ko ndax yi ci am. bi nga ah bon comme mbër parce que à chaque fois su may supporter dañ may réclamer na nga war a bëre te nag mbër nag xam nga. mbër ca waaroo quoi. am na ñu bëri Gris Bordeaux ñuy wax ne sa combat ak Balla Gaye moo dàq maanaam nit ñi dañ cee doyalagul ba tey. waaw mënul yem mënul bokkul nag waaw bokkul c'est différent. am na la moo tax la moo tax différent. waaw parce que c'est deux lutteurs offensifs xam nga mbër mën nga boole parfois défenseur ak un xam nga ngay xool kan moo war a def combat bi mais combat Gris Balla ay ñaari mbër la ñoo xam ne du ñu du ñu du ñu xaar kon moo tax amul nit ku ci ciy nattable nii nekk combat bi nga xam ne moom la amateur di soxla. ci waatoon déggu naa fi nga waatoon ne bii yoon da koy dóor mu daal. loolu yegguñu foofu. xam nga waxoon te bëree gu ngeen xam fu ñu toll nii. dañu ñëw yaa ba tey. maanaam xam nga làmb joo xam ne signé ko mun guñ cee prononcé wu. seen combat bi lan la mën a dolli làmb. non mooy mooy xamoo làmb euh, tey d'abord damay euh, féliciter le promoteur ah parce que c'est pas facile ah Gaston Mbengue parce bëri na coow trop mën naa xuloo yàlla rek la xuloogul parce que xam naa gisu ko su ko gisoon na xuloog moom mais nag nit kuy liggéey la parce que nag quoi qu'on dise rek mooy tey bi muy jox mbër yi avance ci moment yu critique la làmb ji nekkoon te loolu il faut nga xam liggéey ñeme li ngay def pour mën ko moment Covid au milieu de Covid Covid la ga la la génnee ay avance duñ jox kon ça veut dire kooku tey bëgg na am na fu mu bëgg yóbbu ba te làmb nag mooy nelawoon na te tey li ci gën a garaaw mooy phénomène jël ñaari avance ñetti avance loolu sax day arrangé mbër day arrangé amateur yi parce que boo xoolee tey mbër boo xam ne toute une année day préparé benn komba des fois sa bi ñëw bay waaj a jege ñu prolongé ko poussaat ko nga xam ne tey amul benn ci sport ci sport yi ngay dem ci àddina bi yëpp muy nekk sport individuel calendrier la adve la la la athlète bi di def athlète calendrier année bi tu vas faire comme le cas de MMA gars ñëw def ay quatre combats cinq combats ci année bi. mais mbër tey nga toog tout une année di préparer benn combat xam nga te parfois doo am yenn motivation yi dafa xam nga rupture yi kon tey Gaston tey système bi mu teg amoon na fi ay temps dana na ko def ak Moustapha Guèye daan Moustapha Guèye daan na jël ay quatre avance trois avance nekk ci compétition boo xam ne yow toute une année di nga xam ne yow nii dangay ngay concentré wu doo am jot loolu na bu ko indiwaatee wax dëgg yàlla dañ koy rafetlu di ko ci encouragé di demander état bi nag pour mu gën ko yokk loxo may ko doole ak ay moromam yu nekk ci la. mais Matar Matar Matar préparation yooyu waaw waaw waaw préparation yi nga wax. parce que dafay jël ay trois ay trois avance ay quatre avance ndax yow pare nga pour jël ay trois avance quatre avance non pare naa pour surtout les jeunes jeunes yi nga xam ne tey dañu mbër jeunes yi ci ay exploit nag ci ci ci def ay preuve je suis prêt pour pourquoi pas parce que loolu ma fi nekk nag je précise bien mes mots jeunes yi nga xam ne dañu wane seen bopp ci làmb ji pare naa pour may leen chance jël combat benn ba ñaar ba ñett Ama ci la bokk. quand je dis les jeunes. Hmm, bàyyiwuma kenn bàyyiwuma kenn jeune bu fi def wane sa bopp incha allah. pare naa pour jël benn komba ba ñaar ba ñett. am na lu ma la bëggoon laaj sànq Matar lu ma ko bëggoon laaj mooy fusion wu Fass ak écurie Ndakaaru Amadou Kati Diop moo andi woon Yaxya Diop Yékini mu bëreeg Balla Balla daan ko tey mooy seen entraîneur principal ci écurie Fass fusion boobu doole bu yokku la ci biir écurie bu la yokku doole la de plus wala. non lu ko ku xam ni ku xam ni ku ku xam Amadou Kati Diop xam Ndakaaru xam nga benn parti la woon bu nekkoon Fass bu jékki-jékki arrière dem créé Ndakaaru parti boobu moo pakkati woon ci Fass moo ñëwaat kon ça veut dire que lu lu dajjeeku fenn bu ñëwaatee day yokk complémentarité te loolu dañ ciy rafetlu Amadou Kati Diop à chaque fois dama koy wax mooy Zidane ci làmb ji waaw ah, Kati Diop mm. mooy Zidane côté coaching il est trop fort mm. personnalité bi dignité bi rage bi ak xam-xam bi mm. nga maturité bi ngeen wane waat moo mën a jur li li alxuraan di wax rek way kon arab bi danaan habib habibaka yow ma asa an yakuna baidaka yow man ma doomu aadama bi saa yu sa diggat ñagas del sedd ni ëllëg di ngeen jubo rafetal parce que nit bul bul am sa bul am divergence ak nit tax nga yëkkati kàddu yoo xam ne ëllëg bu juboo amee da ngay ruus malgré nag le promoteur Gaston amoon nañ ay ñagas-ñagas mais kenn yëkkatu ci kàddu boo xam ne tey suba buñ ko doon indiwaat da am loolu na xare te nag ñun nag dañoo baaxoo diggante parce que te loolu c'était c'était des détails ñëg la mu mer ma mer ñu waxante ay wax sama ma jóg xam nga nit doomu aadama nag moo mel noonu li am ni li am solo ci mbir mi mooy nit nga dem ba bi ci biir xam ni moom mu am na grandeur u père parce que dem Gaston relation bi ma am ak moom en tant que mbër ak promoteur aw ma ko aw ma ko kenn malgré que xaw ma këram fii mais relation bi ñu am relation humaine en tant que nit ak nit kaf di tooñante di lu ne dañ koy waxante moom rek laa ko amal mais nag li amoon mënul ñàkk nag ci diggante an ay waay ay liggéeykat mais tey la gën a rafet tey laa gën am considération ci moom ba pare nag c'est une personne à saluer à encourager parce que nag saa yi nañu waxante dëgg nga làmb ji nelawoon na bien avant corona bi làmb ji avant corona bi làmb nelawoon na ay benn combat lañ doon wax mais tey système bi mu teg nii état def ko ci war a encourager jàppale ko ci pas seulement moom am na yeneen promoteur ay ñoom Pape Abdou Fall ay yeneen jeunes ay jëy production ak yeneen ak ay ñoom comment dirais a ma leen gën a xam ñoom Assane Ndiaye promoteur yëpp xam nga pour état bi parce que ñooñu tamit il faut ñu am ñu leen accompagner pour que tey ñu bëgg ci bés bu bëgg li Gaston def nii tey man nii tey bu ñu leen joxoon loxo jàppale leen dañuy def lu ko raw parce que seen propre moyen la ñuy jël attention dem di doo xam fu ñu jëlee seen xaalis pour ñëw investir te làmb nag facteur développement la quoi qu'on dise rek mooy làmb yokk na parce que nag li xewoon ci dëkk bi ba nga xam dëkk bi dafa yëngu woon bi benn combat rek le cas de euh, bom euh, Eumeu Sène la de bi mu ñëwee rek xol yëpp dafa xam ne làmb day redressé dëkk. encore une fois leen di jaajëfal di leen am kontaan. man li ma lay laaj li ma lay laaj mooy euh, maanaam tamit yaa ko wax si promoteur yi ñu gis koo xam ne doomu Sénégal nekk États-Unis ñu naan ko moo gét mu ñëw moom tamit ñu gis mbër yu bëri bokk na ci sa poulain lagros say poulain sax ak yeneen mbër yu mu jox ay avance kooku tamit defe naa ne bokk na ci koo xam ne tey am na lu mu ñëw yokkaat ko si làmb ndax mbër yu mbër yu bëri yu toogoon bëreetuñu na tey bañ am mooy loolu rek mooy li ma la wax rek dama généraliser rek man mii di wax ak yow en toute sincérité il m'a contacté moom en personne il m'a appelé moom en personne woo ma wax ak man bëgg sama combat pare pour discuter que tey bi day euh, day day avantage oo année bi année bi mën nga bëre ba ñett ba ñeent loolu ça arrange les lutteurs parce que tey benn combat man dama ko mës a dama ko mës a ñaxtu parce que tey dafa metti dafa metti da ngay adduna bi dañuy yaakaar ne adduna ak li ci biir yaa ko yor te tey toute une année ngay préparé da ngay bëre ba pare. parce nañ la gis ngay bëre ñaar yow ci saison bi. mais c'est parce que da ngay bëre ak une c'était une fois c'était une fois si sama carrière te c'est loolu c'est pas bien loolu dalay dalay nagam parce que tamit. nit ay nit la ñu on n'est pas des machines am famille war a gérer suñu famille war a gérer suñu ay business tey mënoo ko mënoo tu peux mélanger les deux mais encore une fois moo geer bi ngay wax nii c'est un jeune à encourager c'est un jeune à féliciter il m'a contacté pour sama pour ay combat et je reste à l'écoute je suis daal pour tey ba dama mën li sama gars yëpp doon wax parce que fu ma tourné samay supporters dañ may réclamer da nga war a bëre te tamit mënoo nekk leaderu écurie te wax dëgg yàlla xaftaan bi du tooy. kon boog en tout cas je suis bi moom forme bi xam nga dañuy dañuy dañuy daasal ah. Euh, forme bi. forme bi di di non non bu gën a boobu. ah parce que bu gën a boobu laa indi. en tout cas maa ngi ko maa ngi maa ngi. combat yooyu yëpp yegguñu foofu. lan nga ciy wax comme pronostic. le pronostic. loolu teel na di. ah ñëw di soog non teel waaw ah, na waaye loolu teel na ñun du ñu jinne du ñu ay malaaka da ngeen ko xoosaat bi yoon ah da ngeen ko xoosaat en tout cas ko toog étudier ko xam nga ay nante waaw xool seetaan ni ñu toogee ah, ah ñu toogee man match bi moo tax mu mel ni kon yàgg maar girée ngi noonu dugg si na kër peeram waaw xale baa ngi noonu doomu dubles bi mooy wàcc si noonu ndeysaan waaw mu ngi ànd ak liiru jaan doomi ndeyam mu dagg place kanam bi mu sol waaw ñu ngi fii tey nag kër Papa Gaston jasneer bi mu sol fi nga xam ne mooy maris eh, gis nga li mu sol ci jasneer ñu war a taxawal digganteem ak ki nga xam ne si ni mooy Gris Bordeaux noonu waaye Balla <laughs> idolam la kooku buuse lañ koy wax waaw kooku mooy kooku mooy le lion de Guédiawaye mu ngi noonu di wàcc si mais xaama tiy sa man dama lay balu ak yàlla Babacar <laughs> mais na mën yàlla boo dee si ah? nga jàmm maa ngi am tawfeex man dama la naan sa abi ma rafet na macha allah avant ah, merci beaucoup lu tax ndogu si woo fi non fekk moo doon man li may li may man sama question lenn la uh-huh. Balla Gaye numéro 2 tey bu la neexee nga ne. Mhm. championnat Angleterre wala bu Italie wala bu Espagne nañu amee calendrier di football jëmale saison. Mhm. Balla noonu la defaat. Mhm. defoon nga ko ci kalaaf mais da nga koo tullantiwaat. Bombardier Boy Niang Gris doo lu tax loolu. ak Eumeu seen mi ñuy waaj mi ñuy dégg ci weewu nag. waaw sant yàlla rek julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam di sant sumay ñaari waajur. di sant suma Serigne Serigne Bassirou Bara di ko ñaan yàlla yàlla na yàlla yokk leeram tax ñu ci barkeem. di ñaanal kilifa réew mi yëpp ñu yàgg fi loolu te wér di baalu ñëpp a di baal ñëpp àq root na su may saf ak sumay may encadrement ak ñi nga xamante ñoom la àndal ñu kii ci mel ni liiru sama mag boucher Aline donc vraiment di ci sant suma estaf ndax estaf bu baax lii lay jëriñ ku ci mel ni Abdoul Aziz Ari Ndiaye di ko sant di ko gërëm Baye Ndiaye ñu ngi ca Màkka Masata ñoom ñëpp maa ngi leen di ñaanal lépp luñ fa ñaan leen naa gi mooy li ma waxoon rek xaw ma joxe bopp ci làmmiñ maam mm-hmm. esaf boo xamante ne moo mm-hmm. dëgg yàlla kenn ku nekk nga nekk mbër ñaan nga yàlla am esaf bu mel noonu mm-hmm. loolu nag dama koy sante suñu borom buñ la tegee ci yoon ah, da tegu ci yoon donc tey laa ci am preuve ma leer mënoo boo xëyaatee nga demaat kër garçon laa ci moo waral sama. moom moo leen boo xëyee rek nga demaat kër garçon. waaw moom mujjee woo léegi na ma fa mu mel ni kon diggante Aziz ak Balla fi mu nekk nii maanaam wax ak jëf la. bu ne lii la nga ne nga ne nga def la mu wax. waaw lu mu waxul nag baaxul ci man. lu mu wax baax na ci man ndax jëfe ndigal bàyyi tere rek a fi am. moo xam ci wàllu bu mu munti doon nag boo xamee ne ñi la yor bëgg nañ la sopp nañ la te dañ la teg ci raay bu baax kooku yoon la nga ànd ak ñoom jëfe ndigal bàyyi tere. mais lan mooy sa rapport ak le donking de l'arène Gaston Mbengue ba mu def ba ci ñetti avance lan mooy lan mooy lan mooy waa di ko ñaanal gudd fan ak wér-gu-yaram ak wér ak wérle ndax euh, gudd fanam ci réew mhm. am na solo am na njëriñ mhm. rawatina jeunesse yi nga xamante ne ay xale lañu ku ci mel ni man mais boo nee jeune nag dañ yaakaar ne jeune mooy loolu waaw donc voilà bëri na mhm. di ko ñaanal gudd fan ak wér-gu-yaram ak wérle ba lépp li nga xamante ne bugg na ko ci làmb euh, yàlla na ko yàlla gën a kàttanal gën ko dolil mu koy def parce que bokk na ci li nga xamante ne day bëgg xelu doomu aadama yi rawatina Sénégal lii nekk suñu cosaan mu ci def ay jéego yàgg ci loolu ba mu demee aussi tamit mu manqué wanewaat ne nag aussi tamit saa yu ma ñëwee maa fi mën maay borom mbir <laughs> bi mhm. Gaston bi nga ban ban lan nga lan lan mooy njëkk a ñëw sa xel. waaw aw ma ci aw ma ci sentiment aw ma ci maa ngi jégalu sax maanaam am naa ci satisfaire boo xamante ne vraiment nekk na lu ma neex parce que ku xam combat Balla Gaye Gris nu mu neexee woon. nu mu méttee woon. donc yàlla dogal tey mu amee ci ci décision arbitre par avertissement nekkul woon lu ma gënal waaye ndam la rek. donc nag lii nag mu soobee yàlla bëgg nañu mu leer nañu ne midi ak sondal mm-hmm. donc vraiment. sa relation yu mel ni yi nga am ak Gris gis nañ ni ngeen jaxasoo yéen ñaar. Mm-hmm. dara lu muy yàq ci combat. non mbër la champion la man mbër la champion la mm-hmm. et ñu bokk nag lu ñuy xeex bokk àq ak yelleef ci doomu aadama ci lutteur mm-hmm. mu nekk président bi lépp ci lu mu nekk nag dañ ko war a dooleel kattanal ko ànd ak moom liggéey waaye nag lii nga xamante ni ñoo ko sekk xam na ne moom ni ma ko xamee man nu ma ko xamee noonu la xamante ne dañuy liggéey dañuy dóorante kurpañ dañuy bëri. est-ce que amoo lu la surprendre ñu doon xaar sa diggante a ki nga xam ne mooy Eumeu Sène ñu jekk ba ci yàgg ñu ni Gris Bordeaux est-ce que amoo lu la man jàpp naane fu nekk nii kon jàpp naa ne man sama xolu bopp war naa mën a ba dix contrat wala ba quatre contrat wala cinq contrat donc vraiment li ma ci daal mooy ah, am na ñaan naa yàlla ak sumay saf ñoom cinq mhm. contrat ah Omar man li ma lay laaj mooy Gris bu dama laaj sax Ibakan mu ne Gris Bordeaux mësut a gis ku ko daan ci géew ba toog ci koom xaar photo seen diggante ku ne xam na ne décision la jeexoon yaa ko wax sànq bii mën nañoo xaar photo am ci toog ci kaw nit bi attends photo dina am hmm. dinaa ah. toog ci kaw moom lay jóge wala ci non déglu leen ma rek déglu loo wax bii dina am kon sama maam fodé dus ba nam ko daan defee moom la daanee par ne attend photo waaw bu soobee yàlla naa war ci kawam ne ko attend photo giri kon ci kaw giri bodo kon maanaam kenn mosulaa daan ba war sa kaw waaw bu soobee yàlla dinaa ko daan naa ci yow nag ñu ni da ngay bëgg a tukki pour préparer ji combat bi maa ngi fekk suma liggéey nañu ànd si biir kookoy Omar Sakho Omar Sakho ngi noonuy dugg si Omar a ngi ànd ak Bousse ku ne xam na Bousse Ketchup moom waaye kenn du liiru jaan Baye Fall bi man la mu la mu def def ta day maa ngi ciy jégglu de sama xarit nga ne boo ñëw du ma takk. Ah, man de dama gis Omar. fo yaa ne sax ci kanam oto bi toog. Mhm. ah c'est normal sama rakk la. retrouvaille enfin. Balla Gaye moom min na salon bi Pape Aline Mbaye a ngi noon borom Walf. micro Walf Fadjri laa tee may nuyu waa Walf yëpp. FM ak TV. quotidien ya lépp luy Walf. ndaysaan kookooy Balla Gaye mu ngi noonu ana giri hélas Omaro ngoo ngi nuyu Iba Kane lay nuyoo noonu journaliste bu mag bi Omaro ngi noonu giree ngongu toog non xam naa xam naa kontaan nga. mais xam nga da ngay wàcc gis nga. ñu naa fi fekk sa defet nag. ñu naa fekk fi sa defet loolu dara ah, Barcelone la. ne ko loolu dara Barcelone yëpp kontaan. ne ko ah, dama koy supporter. Barça nga faral man Barça la. Ah, voilà mais la toog la ah ku la toog lu bari. garaaw la. combat nara neex waaye nee na ko ñëw naa fekk fi sa defet loolu dara loolu dafa ñaari équipe yi doon la. xam nga match bi mooy Real Barça. waaw parce que kii. Real Barça kii Barça la faral kii Real la faral. musul faral City moom Barça la kii Real moo tax derbi bu garaaw la ñuy gis derbi la Real Barça. kookoy grand Malick Thiandoum. combat bu rëy te na ramit Elas Diouf Balla Ngongu nuyoog Abdoulaat njaay cey laat waaye laatit kenn du moom laat laat day ëffal rek Balla xam nga kii mu toogal ma wax la leen ci diggante Double Less ak Basirou Babou papa papa papa defe naa kii nga toogal sa doom la de kii de miin nga ko moom. <laughs> waaw miin naa ko baax. naa ko bu lu mu signé yaa ko si. waaw loolu yàgg na yàgg na. loolu yàgg na. dama laaj sànq Iba Kane mu ne Gris Bordeaux mbër mës na toog ci kaw ci diggab géew Balla ne na ci biti Gris Bordeaux yoon dinaa toog ci kaw. ah waaw loolu loolu lañ bëgg de. waaw loolu lañ bëgg bu mag ak rakk làmb làmb lu ne la boole Lamine. Makan Mbeng Makan de gisaguma ko waaye loo ci mën a dégg daal boobu jotaay boobu toogaay rafet na biib toogaay daal rafet na discussion ñoom ñaar ñëpp nag boo bëggee dégg nag ku ci ne Gaston jox na la avance Balla moom ay avance la jël fi mu nekk nii Sa jël na benn